Bara maay papaam effectivement bon maa ko gën nekk jeune quoi xam nga dafa gën a nice rek mais maa ko gën nekk jeune quoi effectivement que ne mi ngi génn ci télé bi ci benn série bu tudd Adja effectivement bon je trouve que ne nag il remplit très bien son rôle là mi ngi joué vraiment rôle bi ñu ko jox gis naa ne. am na ci une bonne réception auprès des auditeurs ñu koy seetaan gis naa ne film bi intéressé na leen trop personnellement moom gis naa ne vraiment apprécié nañu man it apprécié naa quoi. waaw mais man dama jàpp ne nit lu muy dugg réussite na ci oubien que ne bu ci defee farloom pas-pasam yooyu yëpp n'est-ce pas que ne réussite mën na ko ci fekk daal bon à l'origine projet bi ñi ko moom ñoom ñoo def ak seen film ñoom ñoo moom seen film seen scénario yooyu yëpp xëy na booy bi acteur la ci. n'est-ce pas peut-être qu'il a bien rempli son rôle film bi am succès yàlla dogal aussi moom it mu am ci benn visibilité mu feeñ bu baax a baax mu amaale ci succès alhamdulilah sant yàlla. bon bi ma ko njëkkee seetaan mu joué film bi ce premier jour là bon effectivement am naa ci mbégte ma toog ma gis ko mu dugg ci dara bu doon film bu doon match football bu doon li mu mënta doon ma gis mu dugg ci. mu def ci une bonne prestation une bonne réalisation mu gën nit ñi apprécier ma apprécier vraiment il est dans son Hmm. vraiment waaw waaw waaw waaw su ma sañoon tey nag mu nekk footballeur ma koy gis muy football ci télé bi plutôt que mu nekk ci série mais bon ku ci nekk nag da am sa xalaat ci àdduna si sa bopp ak sa xalaat ci sa njaboot wala si say copains des choses comme ça mais yàlla mooy dogal hmm. fii la ko yàlla woowoon n'est-ce pas xëy na leneen mën na ñëwaat sax lu dul film lu dul télé ah hmm. bon xam nañ li xew ci équipe bi ah toujours équipe beneen du mu mënta doon aussi avec toute respon waaw waxee xale la du mag boobu mais il est conscient de beaucoup de choses ah donc yar jeexagul ci moom yar dépassé gul ci moom n'est-ce pas maintenant société bi nu mu mel ñëpp xam nañ li ci mel li xew ñëpp xam nañ li xew c'est son époque jamonoom la des choses comme sa mais ñu ngi koy encadrer. waaw conseil bi ma koy wax d'abord dans un premier temps moo di li njëkk d'abord mu gëm boppam. ndaxte nit looy dund looy def gëm sa bopp moo la cay mën a génne ah donc dans un premier temps bu gëm boppam ba pare maintenant ci liñ ko mën ko woo ci àdduna situation bu mu mën ko toll mu jël ko avec beaucoup de conscience avec beaucoup de professionnalisme ah. ndaxte télé bi tamit dootul ay fort série yi may gis ni ay nit ñoo si investir seeni alal ay entreprise sax ñooyu pour am de la visibilité donc dootul foofu n'est-ce pas donc bu génnee ci mbedd mi tamit en dehors des films et tout ça en dehors de la télé euh, donc war na am une certaine conduite xam nga yooyu yëpp nag ñu ngi ko ci encadré et je pense qu'il est conscient de tout ça bàyyiwuñu suñu loxo ah. bon man nag sama gars yi bu ñu daan baal ci bunt bi lay taxaw mënuma wax dégg ci man la ko doon daal leen di xool